والسيدين فطه حبيب الله ما الغير ما ومن فوقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منا وقرصرت جاي لما فمن رام دركي في استياق نبينا فقد رام أمرا موس طحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبه النايان ومن رام أولى سي يوما وأي وما كمن رام ترك الوصف أيضا قاكسرون ولكنهم غير غاية دروا دما فآذرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثومنا ولا كان ما رأيما فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلم لا الشرق والغرب كبير هواي وما قلت صدحا ودعوى عريضة وهبت جميع الفائدين ولائي ومن شاء ياتي قبيل مماته ومن شاء ناواه كالسقائي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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين مشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن إنه في الآخرة لمن الصالحين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا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 Eh, cheikh mohamadul mahi ibrahim Niass diko ñaanal yalla wër ak guddu fan ak yalla woyofal yan bi nga xam ne la ko bayam wutal muy cheikh ibrahima Niass diko ko ñaanal yalla yalla woyofal ko di ndokkel bu baax eh, di delu di yeesal ndigal li nga xam ne jox nañu ko ñuy organise gàmmu ci bisu 20 avril ci fii ci dakaar ñu ngi koy ñu ngi yeesul yeeslal ndigal loolu di ko yeeslu di ko yeesal di di di ko ci gërëm bu baax a baax a baax ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral ko te guddal fanaan buñ nuyoo Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ngi ci teg euh, représentant xalifa bi fii ci Dakar muy Cheikh Mouhamadul Lamine Ibrahim Niass di ko moom tam di ko ñaanal yàlla yal na yàlla may ko wér te guddal fanam di nuyu euh, imaamul akbar muy Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé moom tam di ko ñaanal yàlla yal na yàlla ko te guddal fanam di nuyu ki nga xam ne dina ànd ak ñun ci gàmmu gi muy porte parole xadra bi di cheikh Mouhamadul Mahi Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla moom tam yal na yàlla dëgëral ko te barkeel ay jëfam ñu ngi nuyu tamit euh, suñ président national. cheikh mohamadul munhamina ibrahim Niass mi président national jamiatu ansaru din ta bokk ak ñun gamu gi nek ci euh, sol ci ñaari mbaxana muy mbaxana euh, président ansaru din wante nek conférencier aussi ci bisu tay bi muy bisu euh, gamu jëppal ci magal juddug yonentu yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci atu grégorienne muy vingt avril ñu ngi nuyu tamit euh, Cheikh Mahamadul Makki mi nga xam ne guddi gii moom moo ko daan taxawee physiquement ca bayal ba ca école Zeyda Mariam euh, bisu contexte bi nga xam ne moom lañ nekk tax moom loolu munta am ñu ngi koy nuyu di ndokel mom tam di ngeen ko gis uh, mu def ci waru garam ci bisu tay bi ñu ngi nuyu tamit di tatagal uh, ustaz babakar uh, Ñang babakar mohammed Roqi Ñang babakar Omar Roqi euh ñi gën ko xam ci babakar Ñang fajiri ñu ngi koy ñu koy nuyu di ko ndokkeel bu baax euh, di ngeen gis ne ànd na ak aussi ci organisation bi ci thème conférence yi nga xam ne moom lañ moom lañ joxe ñu ngi nuyu tamit oustaz euh, Aliou Ndaw euh, mi nga xam ne joxoon nañ ko jox nañ ko thème thème conférence ci guddi magal juddu yonent yalla Muhammad ci ane gregorien oustaz ñu ngi lay tatagal di la nuyu bu baax a baax di di ñaanal ñom ñep di len ñaanal tawfiq yalla yalla yalla sen sen sen jotay yi ba lepp luñ ci jangale rek ak lepp luñ ci wax ah, yalla ah, jotaliko ko ñi nga xamne ñokoy deglu ak ñokoy setan ta barkel ko ñu ngi ah, rendre hommage euh, mbooleem jamiyatu ansaaru diin ñu ngi leen di rendre hommage di ko commencé ci président national comme niñ ko waxee euh, di ci teg euh, le secretaire général national muy tonton Ousmane Thiam di ci teg cabinet bi di ci jiital Amadou Samb Cheikh Tidiane gay Ibrahima Lopez Euh, Abdou Salam Thiam mi nga xam ne moo yor euh, communi commission communication euh, ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñu doon ak Jibril Sarr ñu ñu doon jàppale ak mboolem techniciens yi ñu àndal ñu ñu doon jàppale si réalisation gàmmu gi ci te jóge woon ci bureau national ñu ngi rendre hommage aussi suñ papa yi nga xam ne ñoom ñoo yoroon am ansaaru diin Eh, muy tonton Ousmane Bitey eh, tonton Ablaye Thiam eh, Mohamed Mod Niang mi nga xam Yalla jëlé nako fi tay ñukay koy Yalla Yalla euh yërem ko ta xaré ko aljana di di di ak suñ papa Malaw Kamara ak magay kundul Cheikh Tidiane Kouta ñepp ñi nga xam dal jaar nañ fi Eh, yor jamiyat ansaaru diin bii nga xam ne tey ñun la ko yàlla teg ci suñ loxo ñu koy ñuy organiser gàmmu gi muy gàmmu jëppal te bàyyi loon ko eh, juddu yonentu yàlla Muhammad bàyyi loon ko eh, la région de dakaar mm, ñu ngi leen di ñu ngi leen di rendre hommage bu baax a baax di leen wax ne ñoom ba tey retraité wuñ organisation bi depuis ñu commencé réunion yi ñoom ñu ngi ànd ak ñun di ñu xelal di ñu wax def leen di bàyyi leen di waxtaan leen ak diw def leen ak diw nangam tànn leen tem bi kon ñooñu euh, nekkatuñ ci ci instance yi wante ba léegi ñu ngi liggéeyal jamiyatu ansaaru diin kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla euh, may leen fan wu gudd bu ànd ak wér euh, barkel seeni njaboot ci barke yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni mooy borom guddi gi ñu ngi ñu ngi gërëm suñ collaborateurs yi collaborateurs yi nga xam ne ñoo nekk ñun ci coordination bi di ci jiital collaborateurs yi ñu ngi ciy jiital euh, président yi président groupement yi président groupement bu Géejawaay oustaz Moussa Dembale président groupement bu Pikine euh, Mohamed Niang Mohamed euh, Mbeng ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaay jëfal ak euh, oustaz Barham Seck mi nga xam ne moo jiite groupement bu dakaar di leen gërëm bu baax ak mboolem sama collaborateur yi nga xam ne ñu ngi nekk ak man si jamiyatu ansaaru diin bu Tëngéej di gërëm tamit di leen di leen ndokkeel bu baax a baax muy bureau bi nga xam ne mooy bureau coordination bi euh, le secretaire général euh, Jim Diouf euh, vice-président wu Dakar seen Sène ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ànd ak ñun président commission finance muy Samba Thiam ak Jibril Sow ñëpp ñi nga xam ne daal bañ jàppee organisation bi ba tey wala ba ba weeru avril wala ba weeru mois de mars teroo ba tey ñu ngi ànd ak ñun di xalaat ak def ay pexe di nas di nocci loo xam ne dana mën a taxawee guddi gi nga xam ne moom la euh, suñ sëriñ Maulana Cheikh Ibrahima Niass jagleeloon euh, la région de Dakar muy mu ngi fàttali ne yonent bi dañ ko war di màggal jamono bu nekk rawatina nag bisu anniversaire am euh, mu jagleel ko la capital du Sénégal mooy zone bi nga xam ne fi la lépp dajee politique yi intellectuel yu mag yi oustaz yu mag yi ak jàngalekat yu mag yépp université yu mag yi yépp ci capital bi la dajee moo tax mu sant ñu ne nañ fàttali nit ñi ne euh, yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom tam am na

kon nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax di gërëm euh, participants yi participants yi mooy ñi nga xam ne ay personnes ressources lañ kenn ku ci nekk toll na fu sori yónnee ñu alalam yónnee ñu euh, dooleem yónnee ñu xam-xamam yónnee ñu ay pexeem pour réussite événement bi ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm ku jege ak ku sori di gërëm mboolem taalibe bàyyi di leen ñaax di ñaax suñ gannaaw bu ñaaxee suñ bopp di wax ne euh, jametu ansaaru diin bii nga xam ne moom la ñu bàyyi ñes digal ne nañ ci nasoo ñun ñëpp euh, nañ ci gën a góorlu ku amul woon carte fii ci région de Dakar na nga góorgóorlu jokkoo groupement bi nga xam ne ci département bi nga dëkk pour am carte di di ñaax euh, ñu gannaaw bu amee carte ñuy cotiser normalement di jokkoo di am information yu nga xam ne mooy jógee si jamiyatu ansaaru diin ndax information yu jógee ci jamiyatu ansaaru diin mooy jógee si euh, Cheikh Mouhamadul Mounhamina mi nga xam ne mooy président national te euh, mu xam Cheikh Mouhamadul Mounhamina lépp lu mu wax rek ci euh, xalifa bi la ko jëlee ndax xalifa bi moom moo ko fi teg. muy mu jiite ansaaru diin di di ñaax ba léegi ne nañ gëna gor gorlu ci jangal suñ njaboot yi jangal suñ doom yi tënku ci li nga xamni ni mom lañu bayi ñu digal muy naso di xaccando di dorondo kon loolu loy loolu lañu suñ sëriñ digal muy motax mu tracel ñu jamiyatu ansaruddin duñ wax ci jamiyatu ansaruddin mukk ta euh tudduñ suñ suñ khalifa bi nga xamne moo moo fi joge muy eh, Maulana Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass ñu ngi koy rendre hommage bu baax baax ndax jamiyatu ansaruddin tay bu yek sey fim yek si mom moko ko ba nga xamne ne eh, am ay amul amna ay groupement yu bari ci Senegal, yu naso, yu dager di jema a tegu ci yoon wi nga xamne mom la Cheikh Ibrahima Niass tracé lon jamiyatu ansaruddin kon ñu ngi leen di ñu ngi leen di ndokkeel di ñaax suñu bopp di leen ñaax di wax ne nañ góor góorlu ci yëngatu àddina yi tamit ba nga xam ne ay ay nit duñ jël suñu àq wala ñu jël suñ suñ loo xam ne suñ yelleef la ñu di ñu ko xañ loolu li ñu ko mën a may rek mooy nasoo nekk benn di xàccandoo di dóorandoo ci yoon wi nga xam ne nii moom lañu ñu bàyyi ñas traceel kon gannaaw buñ ci ñaaxee suñ bopp ñu ngi ciy ñaax mboolem taalibe bàyyi képp koo xam ne bokk goo woon ci ansaaru diin ñu ngi lay ñaan nga ñëw bokk soo bokkee ñu ngi lay ñaan nga référé si jàngale yi nga xam ne moom la bàyyi ña si jàngale kon uh, yar njaboot gi jàngal leen nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla nangoo topp ndigalu kilifa yi kon ah loolu mooy li nga xam ne mooy message yu jamiyatu ansaaru diin ci xew-xew bii nga xam ne moom lañ nekk muy euh, màggal juddub yonentu yàlla muhammad wala taxawee anniversaire u juddub yonentu yàlla muhammad ci atum jant bi muy année grégorienne di euh, la nuit du 20 avril kon ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel guddi gi lépp lu luñ ci yëngatu yal na yàlla nangul ñu ko lépp lu luñ ci jaamu yàlla yal na ñu ko yàlla nangul ren nag comme ni ko conférencier yi waxee leer ci kaw leer la dafa tombeek weeru koor kon ñu ngi ñu ngi euh, ndokkeel di ñaan yàlla yal na yàlla nangul ñu jëf yi ci màggal juddu yonent bi wante yal yàlla nangul ñu jëf yi ci weer yi nga xam ne moom lañ nekk muy wéru koor barkeel yëngatu yi barkeel dal yi nangu liñ ci liñ koy jaamu ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wa ma zalik llahi bi aziz assalaamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وارض الله من صاحب الأخيار وتابعين الأبرار ومن السنار بأنوارهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيني ندوكي الحضر بيب دي زيارك نخمني موي الخليفة سيدي محمد الماحي شيخ إبراهيم رضي الله عنه يعني يالا قد الفنم بركي الأي ينغتوم متل أي مشروعات بجاي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنكون نيو ñi ngi nuyu mbooleem ñu ne ci ronam ci suñu sëriñ ci borom xam-xam bi ak mbokki taalibe yépp bi sifa faama di nuyu al imam al akbar sayyid cheikh ahmad tidiane ali cissé ak naatix rasmi bismi al hadra seydi al mahi seydi ali di wax rek ne yobante bu diis la buñ ko jëlalee suñ bopp nekk lu oyof ndax ndigal li cheikh Mounhamina Cheikh Ibrahim nga xam ne mooy président saaru diin jox ñu ndigal ci ndigalu ay kilifa moom it ne nañ taxawe lu mel nii ci euh, gàmmu jëppal ci biir weeru koor xam ne nuurun ala nuurin la gàmmu nekk weeru Cheikh Ibrahim nga xam ne moo ko gënaloon lu baree bare baree bari nga xam ne bu doon tukki sax gàmmu jege dangay ngay dégg mu ne gàmmu jege na sama xel a ngi Medina waxoon na ne xal bii dawaaman bi madina arqubu chahr alxabib is araahu yaqrubu radiallahu anhu mattaana bi barakaati weeru koor di weeru yonant nga xam ne jàng nañ ci sunna ne naka jëkk dafa tabe waaye wakaan ajooda ma yakunu fi ramadana weeru koor ci lay ëpp li tabe kon muy ñaari weer yoo xam ne kii di weeru yonent bi sallallahu alayhi di weeru koor lii di weeru Cheikh Ibrahima di 20 avril nga xam ne mooy juddu yonent bi sallallahu ci weeru ajam kon loolu ay leer la ci biir leer ñi ngeen ndokkeel xadara bi yëpp bi si faama euh, di waar rek ne santoon nañ ñu ay ñàngat bu ndaw ci ren nga xam ne mooy cinquante neuvième édition ci gàmmu jëppal Cheikh Ibrahima mayeen ko dakaar muy kado boo xam ne du dañ mukk di barkel ba pencam yàlla crise bi am ci jamono lan moo ci jàngatu Cheikh Ibrahima euh, ci nan la ñuy jëfandikoo ñàngatu jàngale Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ba mën am solution ci crise bi nga xam ne ñëpp a ngi koy jooy jooyatuñu xam-xam jooyatuñu euh, ay moyen léegi valeur la ñuy jooy euh, nit ñaa ngi melal mais ñi mel ñoo bëreetul léegi soo demee ne Cheikh Ibrahima radiallahu anhu balaa dara xew xam ne moom léppam yonantu la sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ci ay ñàngaleem ne fa awsaafu qudsiyatun wa qad sama mu ne yun salaa sallam ay jikkoom yépp mooy jikko yàlla moo tax mu kowe ala rutabil aqwaami min kulli saalifin bàyyi mu ne amul kenn ku nekkul ci ron yonantu salaa sallam ci jikko nit nag da nga xam jikkoom jukkowe ci état bi bëri surtout su néewee doole mbaa bu meree mbaa bu jekkoo loolu dana la jàngal jikko yi waaye yonte keroog ba mu newee doole la la gën a am ñàmbaar ak rabbaani yu keroog ba ñëw Abu Taalib na ko lu bëgg na ko wax ñu jox ko lu nekk ñu gaaral ko lu nekk ci koom-koom yi àdduna ci tënk waaye daf ne buñ jëloon jant bi teg suma ndeyjoor weer wi suma càmmooy pour ma bàyyi oto bi pare ma ko bàyyi kon amoon na sajaa rabbaaniya te boobu mi ngi néew doole. te sajaa ci jikko yu ko la bokk yonent salaa salaam keroog Uhud nday Aysa da ko laaj na ko ban événement moo la gën a mar ci li passé sa diggante Quraysh mën a xareb Uhud waaye déglu li mu wax keroog xareb Uhud biñ ko loolee loraanga gu metti daf ne allahumma xfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun déglul waxin wi ñaanal leen njëgal layal leen taf leen ci boppam ci jamonoy mer yàlla jéggalal waxoon ñu waa Màkka dana li xaw mi loolu lor gi métti métti métti moo leen moom ba léegi fàttu ne njabootam lañ aussi mu layal len fa innoom laa yaalamuun dara gënte ko way lolu ci jamono bo xamne ñing la togn yàlla yow lay déglu nga wax ibara bu daw yaram bi sallallahu kon yunus sallallahu sallam léppam jikko la motax euh Cheikh ibrahim radiyallahu anhu euh nga xamne ne bi muy ñaan yàlla daf ne ko hadiban akhlaqi man yàlla li ma bëgg nga defal mooy samay jikko la bëgg na set wecc comme ni jikko yonent sallallahu alayhi wasallam wax ne wa mudd sifaati min sifaatika sarmadan lii la bàyyi ñaanoon yàlla wa kammil irfaani wa ilmi wa saddida jikko yuyu nag nga xam ne mooy jikko Cheikh Ibrahima radiallahu anhu buñ ko toppee eh, da fekk ne lu baree baree baree bari ci jamono yàqu-yàqu bi buñ jëlee jàngatam mën nañ cee génn bi ci njëkk ci li yàq jikko mooy nañ bàyyi xel ne salafu saalix seen jàkka yi ak seen xalaqaat ilmi yi ci lañ doon defaree seen aw nit ñëpp ci ñun nag fañ doon baaxee léegi dañ fay yàqoo ndax tawfiq moo manqué zahara al fasaadu fi l barri wal bahri bima ma kasabat aydi nnaasi boo demee ci mu fassiru nuy nu ne firee nañ ko mais danaa jël benn mu fassir barru foofa firee ko xol Euh, fire ko cër yi baxaru nga ko xol mu ne nit ñi xol yi ak yi moo yàqu moo tax la doon jagal nit ñi léegi presque jagalatu leen bu njëkk jenn jubal na ab nation lamu léegi boo wàccewoon kaamil bi di ko tafsir ci mboolem xëyit riwaaya di mboolem awju tafsir yi lu tax nit ñi fañ nekkoon ñu bàyyee ko fa lu ko waral mooy yàqu-yàqu moo am ba yi doon jubal nit ñi léegi daanaka jëriñutut lu baree baree bare su ko defee nag yëpp yi ko waral mooy yar bi moo manqué Eh, yonent salaa salaam benn bind ko tuddee na ko zëllul mamduud mooy ker gi nga xam ne dafa tàlleeku kenn ku ne gis sa bopp yonentu ak ay noonam te nañ seen wàll ci keram gi yonentu ak bàyyi may yonentu ak mbooleem lu yàlla bind amoon na cër bu lëw ci keram gi kon kaana zullan mamduudan zullan mamduud boobu nag moom la salafu saalih yi jëloon bu njëkk kër gi dafay yar bay ak yaay dañuy yar mbedd mi yar àndandoor yi yar jàngalekat bi yar bu njëkk buyut mustamira mu amoon e, xoolal alquran li ñu jàngal uslub doy waar ci diggante nit ak ñaari wajuram bi ñu alquran santee na nañ ñaanal suñu ñaari wajur déglul uslub bi nga ko waxee wa qul rabbir ham uma kama rabbayaani saxiran e, waxal yow doom ne yow sama borom yërëmal sama ñaari wajur waxut kenn ñu ma yërëmee bi ma nekkee gone mais kenn ñu ma yare yaree kama raximaani kama rabbayaani kon ndekki nit soo ko yërëmee da nga koy yar nitu diina nag dafay yar ku ñoom da ngay yafal yafal ak yar bokkul yafal mooy jox mu lekk faj solal dëkkal mais doo ko si jikko ji kooku moom boo ko defee xar danga la mbëkk mbëkk say gan mbëkk mbëkk sa njaboot waaye nit dañ ko yar dañ ko moo tax yar bi nag moom manqué ba nga xam ne euh, lu bëree bëri ci mbedd mi day yàq nu ñuy def nag sukkandiku ci njàngale Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ba mën a génn ci loolu boo demee ca Ghunia euh, li Seydi Abdul Qadir al Jilani radiyallahu anhu wa arda mi ngi fay jàngale benn xikaaya war nañ ci taxaw moom la dal benn taalibeem moo ñëw na ko sëriñ bi man de am naa ci pas-pas bu kawe mais bëgg naa karaama bu dalal suma xel mu ne ko ban façon kadang mu ne ko a indil pom ci jamono bi nga xam ne pom dafa raar mu làmb ci jaww ji ci doolee yàlla ndax loolu bul fàtte na lépp lu nekk lépp lu yàlla may rek ba léegi mën na ko maye moo xam da ko mas a may wali wala da ko mas a may yonant ndey mariam jàngoon na ci alquran anna laki hada qalat huwa min indillah te booba fruit la yoo xam ne da koy récolté ci lu nekkul période bii loolu amee Cheikh Abdou Khadir Jilani génn eh, lamb ci jaww ji daj ñaari pom bi mu xollee benn bi mu saf suukar neex lool mu jox dongo bi benn bi mu mu bi mu ko xaree sax génn ci mu wax sëriñ bi lii jaaxal na ma pom bii neex bii génne sax te ñaar yëpp ñoo bokk fi ñu bàyyeekoo ci benn karaama bi lañ bàyyeekoo mu ne ko bii loxo ku tooñ da koo laal. bee nag loxo ku yàlla musal ci tooñ de koo laal kon mbir yaa ngoo may yaa ñëpp a jànge woon jëlee fa baa moom mooy xam-xam kii bi mu dajee xam-xamam dafa génne sax moo tax mu mu xeebe ci jaam yàlla yi euh, da nga di ubbi buntam nooneel ubbi buntam xeebeel te te pourtant texte yi muy sukkandiku bay xeeb am na ku ci sukkandiku ba lewet kon moo lay xamal yëf yi ci ki jël pom bi la mais pas ci pom bi. léegi nag Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ci njàngaleem eh, asbaabul azimati bokk na ci waral crise ñàkk dana koy waral doomu aadama illa man rahima rabbuk bu ñàkkee rek yoo de jikkoy mala wax sa dasaay sa min juuin lañ jàngoon ca eh, limaam bu seer yi moo Ibrahima am na ay surafa yu daa ñëw ci moom mu ubal leen yoonu ut liggéey su ngeen ñëwatee Sénégal bu leen dem ci nit ñi di laaj laaj dafa suufe su ngeen mënta jàngale ñu leen di fay mënu leen bind ñu leen di fay dem leen tax ni matt jaay pour ngeen sàmm seen ngor kon moo lay xamal ne bokk na ci crise bi gën a doy waar doomu aadama bi ñàkkee rek nuñ amee la ñu ut ak fu am-am bi bàyyee ko eh, timit nit warta toog bàyyi radiyallahu anhu ci njàngalee mu rafet bi muy fiir laaya ji wa ma jaalnaahum jasadan laa yakuluuna taama wa ma kaanu xaalidin bàyyi mu ne danaa ci istinbaatee ne comme yàlla mu ne defuma leen jëmm yu du lekk kon foog ñu liggéeyi defuma leen jëmm yu du dee kon foog ñu jaamu yàlla mu xam mu xam ne al amal wal ibaada ñoom ñaar ñoo war a ànd kon nit ki boo fexee ba mu am dana mën a am benn partie bu mag bu mën a baare ci ci lu suufe loo xam ne dafay jëm ci moom moo tax Cheikh Ibrahima ci njàngaleem radiallahu anhu ubboon na buntab liggéey bay na fi baylu na fi gis nga ni mu doon euh, xiiree bu nawet jotee da nga gis ay xasaay yoo xam ne mi ngi ñaan jiw ñaan yàlla yombal jiw ñaan yàlla yombal taw kon moo la xam liggéey liggéeykat la woon na ci crise yi ñàkk a jàng euh, Cheikh Ibrahima radiallahu anhu wax na ne ci ci leetaram mu ne addaawu kulluhu aljahlu bi sharia wa dawaawu huwa arrujuu ila taallum bàyyi mun a feebar yëpp li ko waral mooy nit ñi dañoo déggatul seen charia bi leetar bu leen yàlla jox la pare wuñ koo liir ndax yàkkamti nangatuñoo jàng ba pare bëgg nekk ay boromi xam-xam su boobaa ñi am xam-xam su àddoo dañu xam ne kii tàmbaleegut kon bàyyi mu ne bokk na ci crise bi gën a doy waar bokk na ci li gën a xàllu crise bi gën a doy waar mooy ñàkk jàng foo ñu jàng ci njëlbeenam la ñu waxoon ne laa budd an tuqaddima taalluma fa kun li shiraati al ilahi muhkima bàyyi mu ne jàng mënta ñàkk dem leen jàng xam sharia bi li mu wax jàng alquran jàng hadis ak yi koy dëgëral kon bokk na ci crise bi gën a doy waar crise u ñàkk a jàng te bàyyi taxaw na ci taalif na téere ne nañ jàngi nit bala moo wax xam moo war a jiitu bala moo jëf xam moo war a jiitu kon tafsiratul anam moo ko bind radiyallahu anhu bokk na ci crise yi al i'raadu anillah mooy wan yàlla gannaaw bàyyi mu ne bu jamono jafee rek loolu moo ko indi combat am yëpp nag moom Cheikh Ibrahima moo jël jaami delloo seen borom eh, wax na ne wal ummatu qasdi fii mu ana suqum ila xadratil barri jaam yi yu yonantu li may pare ci ñoom sama soxla ci ñoom mooy ñoom ñëpp ma delloowaat leen ci péewu yàlla mii barru ndax bu ñu wane yàlla gannaaw rek kiris am wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan la alquran mu ne képp ko wan gannaaw sama alquran jële sama diina jële sama njub mére foog mu am dund ko xat pexe yu ne nit ñaa koy def pour adduna bi jag mënta jag feeg dégluwuñ ci yàlla appareil bu paanee da ngay dem ci ki ko defar waaye bâtiment du paan nga seeti tëër kon bi yàlla mooy mooy mu kawinam soo amee lëj-lëj foog ñu def foog ñu déglu yàlla déglu yàlla nag mooy foog ñu dellu ci moom moo tax waxoon nañu ne wa aleykum bi rujuu ilallaahi fi kulli lahzatin fa innal humuma والغموم والأحزان كل كل كل كلها صوب الغفلة عن الله Cheikh Ibrahima mu ne mënuñoo ñàkk dellu ci yàlla problème yëpp li ko indi mooy wan yàlla gannaaw moo tax bi mu ñëwee radiallahu anhu kombaam yëpp mooy dafay fexe ba jaam bi di def mu raaxa ba ak boromam ci laxsa bu ne su ko defee bàyyi day jàngale toujours bi waxukaay yu ubbeekoo mu jël jur na crise bu rëy ci jamono bàyyi ne wax ñett rek laa ci bëgg a dégg ci ku ma yar wax ñetti pàcc la am benn muy fudul mbaa muy fadlu mbaa muy afdal fudul mooy bàyyi mu ne mooy wax joo xam ne jëriñu la jëriñu ki lay déglu fadlu mooy wax joo xam ne da nga ci jëriñu yow ga mais ki déglu da koy lor afdal nag mooy wax joo xam ne da jëriñu ñi la wër dañuy jëriñu bàyyi mu na man ci afdal laa leen di oo kon moo lay xamal ne yaakaar bu mag la moom lay wax toujours xale yi boo demee ci dëkkam màggat bu fa yóbbu sëri ca koko màggat aw nit la ñoo xam ne amuñ bañ ma ñu mënuñoo yëy nga dem fa nag yóbbu saakoob koko da nga ko indiwaat kon am na yoo xam ne soo ko bëgg indi ci penc mi nit ñi duñ ko jëriñoo ba pare eh, da nga de dañ la ci xeebee mbaa ñu xeeb fa nga askanu te loolu kenn ku ne ci ñun war na ko moytu mbokki mbokki bokk na ci crise yi li ko waral te bàyyi indi ñu fi xàll bu rëy mooy adamul ixlaas fi daawa Cheikh Ibrahima dafa jàngale ne yonti yàlla Moussa bi ko yàlla waxee loo yore mu ne sama mu ne sama yat bi mu ko sànnee bàyyi mu ne mu soppali yat euh, mu soppali ko jaan comme ni ko alquran jàngalee bàyyi jàngale ci njàngale mu rëy muy wax fa boo xam ne kenn ku ne war na ci taxaw mu ne yonti yàlla Moussa bi mu askane yari boppam dafa soppali ko jaan mu ne nit lépp lu moomale boppam rek moom tooke sama mbooloo mi sama xam-xam bi sama zaawee bi sama nangam bi sama waxtaan wa heure boo ko defee yàlla def ci jaan mooy day romb ci nit ñi ñu fottusu buñ bare kenn du ci jubee yahzi wala yahdi loolu li koy waral mooy nit ku gis boppam ci biir may gi ko yàlla may bàyyi mu ne kon lépp lu la yàlla may soo bëggee mu jariñe boo ko moomale sa bopp kon daawa bi ñu bari dañuy oote nga yaakaar yàlla la ñuy campagnal fekk seen bopp lañ nekk moo eh, yëf nag mën na xumb mais njëriñ li du bari su ko defee kon loolu nañ ko bàyyi xel ndax bàyyi waxoon na radiyallahu anhu ci yar bu jéggi dayoo ci ajam gi mu ne keroog ba may aji sama hadiyu ma war koo loj tamit géléem mu na waxat suqnaa hadiyan li tatawwi badana wa naxarnaa tawkiilan li annana laa nutqin muy wax ju doy waar ba ma yoree gille ma war koo loj te xereñu ma niñ koy lojee dama ut ko ma ko lojal darsu la buy yare pour nit ñi mën a mucc ci yu bari bàyyi waxoon ne mënuma ko daf ne xereñewuma ko soo waxoon li annana laa naqdiru ñu xam ne kon nit lu mënut war ci xalaat a dugg mais bàyyi daf ne laa nutqin dama ko xereñewut yonent moo ne képp kuy def dara soo liggéey dara nangu nga ko xereñee boo ko na ko man de na nga fexe ba xereñee ko léegi nag nga gis koo xam ne nii tey day dem ci lu nekkul domaine am euh, bëgg ci wax mbaam bëgg ci jëf bokku da ci crise bi gën a doy waar ci jamono euh, wa naxar naa taw kii leen gi lañ bàyyi bu la gileema gileema masala ñëwee te de sa domaine joxal ko la ko lépp lu la ñëwal nekk giléem te nekkul sa domaine boo nekkee eh, boo nekk Ibrahima yu suluki da nga naan wa naxar naa tawkiilan kon nit dugg ci loolu domaine am moo fi yàq lu bari yonentu waxoon na ne ida wasida al amru ila gayri ahlihi fantaziri saata heure buñ joxee nit lu moomut xaaral ne bés penc taxaw na yàqu ñi maanaam yàqu na ko mbokk yi Cheikh ak yaram crise ak nuñ ci mëna génné ci ñangalem Cheikh Ibrahima dafa am luñ tuddé taqdimul ahami dañ ko safané def ta'khirul ahami wal awla faydu bi bay def ne waalamu anna al fayda anna al faydata al qadmi tijaani ka saxaabi المطلوب منها وجود الثمار لا مجرد وقوع الأمتار bàyyi mun a faydu bi xam ne Seydi Cheikh Matadiane mooy boromam mu ne mook taw a yem soxla wuñ ci ndox mu bëri ngóobeef lañ ci soxla ñun nag léegi ndox mu bëri mi lañ soxla ay riwaayaat yu bëri ngay wattu mais doo fexe ba yow am loo wattu ci lii yàlla digal ngay wattu te doo wattu santaane yàlla yi su boobaa bàyyi mu ne ndox mi bëri na mais meññeent amut nawet bu ñëwee mu taw junniy taw dara ñorut saalum ba dem ñu ren nawet amut kon du ndox mi lañ soxla mais bàyyi mu ne ngóobeef lañ soxla kon du ci wax ji lañ soxla mais mel li ngay wax lañ soxla abu madina al qaws sayd ali al khawas dafa wax ben talibam ne ko dégg na yaa ngi waxtaan ci mbax mais jema jemal ba mel mbax mu ne ko kun bil khair mawsufan wala takun lil khair wasifan yaa ngi waxtaan ci tabe mbaa tabe nga yaa ngi waxtaan ci dëddu àdduna mbaa dëddu nga ko yaa ngi waxtaan ci njub mbaa jub nga kon bàyyi mën a liñ soxla mooy simaar léegi nag soxla duñ simaar liñ soxla mooy taw yu bëri muy waame di dem mais soxlaatuñ léegi meññet Cheikh Ibrahima ci ñàngaleem radiyallahu anhu nee na amul lu yàlla di santaane te amul meññent koor giñ dugg nii laalakum tattaquuna mooy añ bi julli gi ñuy maarase guddeeg bëccëg tanha anil fahshaa'i munkari mooy añ bi bàyyi mu ne même julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu la ko yàlla nangulee ñaara lay may al mahabbatu wal ittibaa dana la yóbbu ci bëgg yonent dala yóbbu ba tey ci lan ci roy yonent bi sallallahu soo defee mbokk yi ci ñàngale Cheikh Ibrahima euh, doomu aadama ak boromam nit dafa war a nekk rabbaani waaye waata nekk ramadaani yu yàlla moo la war a boole koor mais koor waru laa booleeg yàlla loolu mooy lan bàyyi def na fat gi nga xam ne dong baa ngi am ci kàndo ak saalixuuna yi dafa am lu koy indi dafa am lu koy téye soo xoolee alquran toujours fatu dana ci jëfandikoo ñaari baat fatu ala ak fatu ila fatax naa bu ci laam ñëwee rek fattu gi dañ la koy may teel la ko bu ci alaa toppee dañ la koy may jox la ay sart walla ana walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataana alayhim la wax iman ak taqwa moo téye seen fattu gi ñoom bàyyi mu ne fattu na nga xam dafay ñëwal taalibe bi fu ne lay bàyyeekoo léeg-léeg mu bàyyeekoo ci bët ñu lay teete jëmele ci yàlla am loo xool yàlla am lum la ci xamal dana bàyyi ko ci nopp dana bàyyi ko ci lu nekk fat fu ne lay jaar jaam bi en tout cas bu départ ci xol la jëm mais port yi muy jaar dafa bëri euh, bàyyi mu ne al fat u nafhatun qudsiyatun tajzibu qalba al abdi ila al hadrati mu ne fatu upp la bu bàyyi ko ci pay yàlla bi day xëcc xolob jaam bi jëmee ko ci xadara bi pour mu pour mu des nag bàyyi mu ne in baqi ala al mujahadati wa tatiri an radail al xulqi sakana wa ila taara wa yarjiu ila zalaami su fekkee dafa continue di di góorgóorlu di wattu jikko yu suufe yi di wattu yi nga xam ne dafay gotti maqaama bi mu ne fat uge dafay sax day màgg su ko deful nag dangay ngay dem ba ci kanam yëg nga ne fat uge euh, seena na waaye dellu na fa mu nekkoon da nga bu defé mu nek saxitan fi aynd alxaq subhanahu wa taala lam manon ci yalla nam don waxe ci yalla nam doon soppandiko ci yalla lolou mu commencé diko diko manki su ko defé nak mbokki ci yaru cheikh ibrahima tombo bu mujju bi ci ñangalem nga ki du su jamono ak nañ ci moy dagahante ak ayibalante ci wax ci jangale lo kuko baye xel sa Ibrahima Mahmoud Diop yàlla na yàlla yokk waxoon na ne doomu aadama bi vingt quatre heures bi su amee xel xuloo xaju ci ak xëccu fekkee ne liñ la soxlawoo yaa ngi koy bàyyi xel sa vingt quatre heures bi dana xat ba ciy dugal temps boo xuloo wala temps sante eh, yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy man baaxul xiyam wal makaarim keroog bi ko Umu Jamil ñëwee di ko ayibal kanam Seydina Abubakar ñëw. yore xeer na moom lay jam Seydina Abubakar ne kee da umu jamila mu ne ko bàyyi ko mu ñëw du ñu gis du ma gis ba mu ñëw nag an sa waa ji mu ne ko waxal li nga bëgg a wax mooy dégg naa dafa aw saara wàcc di ma xas mag sama borom kër commencé di ayibal yonent ba ne mu zammaman asayna wa amrahu na wa diinahu xalayna ñu bëgg a tuddee yonent yàlla Muhammad mu zammam ci dëkk bi saa yi am ñu ko ciy mer mu leen bu mer ñoom mu zammam la man xam man laa tudd kon glace boo fekkee mu toog nga ne ko yaa tàng su meree xamul boppam safara su fekkee mu toog nga ne ko yaa sedd su meree xamul boppam nit bokk ci li koy dimbale ci yenn wax yi du ko du ko déranger mooy na xam li ko yàlla may na xam boppam Cheikh Ibrahima mu ne su ma nit ayëbalee ñaar yi benn la benn mu wax dëgg waaye ma xam ne li ko yàlla nëbb ci man ci ci lu bon moo ëpp. ma jégalu yàlla walla mu sos xam-xam bi yàlla xam ne melu ma a doy na ma kii ana kan lay xulóob kon yarekat la boo xam ne radiallahu anhu buñ ko toppee ci ay jàngaleem plateau yi nga xam ne dafay mujj nekk ji daal day mujj nekk xiwaar euh, Cheikh Ibrahima euh, seeti na aw nitam ci xaayara ci zaawiya tijaaniya bi mu leen waxee bi mu agsee daf ne wa inni jiitukum zairan laa bi sifati zaimin al aqwa mu ne ñëw naa seet si leen waaye ñëw ma a pour na dégg seen kaw dama ñëw nekk kenn ci yéen moo lay xamal ne nit su nekkee njiit ci mbooloo na wàcc mbooloo ma seen wàccuwaay nekk ci kanam aw nit taxul nga gën leen nekk ci kanam mihraab bi taxul nga gën ma amumoona yi il faut ñu di ko bàyyi xel ما هو تدور قليك دارجي فلا تجسم وقتان من لن إجازة بي ينتي على موسى بن لون ينتي على هارون ننكو دي باي خل كارو بمي دم ديكو باي كمبالوم دم نك أخرفني في قوم واسلح ولا تتبي سبيل المفسدين موتو مسما بير أو نت القرآن في لجفن ديكو جفن ديكو والعلا kon mo la xamne bo nekk ci bi mbolo mi nekkal kenn ci ñoom motax baye mu ne way ni jitu motax mu neex ganale motax mu yakamti ñu yakamti mu ñu ganasi ndax dafa oyof mais gan go xane bu ñëw yaangi tit ndax lam bëgg samp da fay doy war foofu du Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ta lépp mi ko jël ci yonentu tok na ci ay sahabam ben arabiy ñëw na ayyukum muhammadun ana kan ci yéen moy muhammad kon xam nga ne koka kana khalifatan fi qawmihi la ala qawmihi sallallahu alaihi wasallam kon dal mbokki ci teunk li ñu mayoon ci waxtu jeex na ñi ngi gërëm bu baax nag suñu xalifa Seydi Madul Maahi ci ay taxawaayam yu kowe di gërëm mboolem ñi ne ci ronam waaye tamit ki nga xam ne mooy suñu président Ansaruddin di Seydi mon Mouhamadul Munhamina Cheikh Ibrahim ci taxawaayam yu kowe ak itteem yu kowe yal na yàlla gën a dooleel ko Ansaruddin yal na ko taalibe yëpp dégg fa bàyyi xooloon bëtam ci Ansaruddin yàlla nañ fa àgg ba euh, wane wan ko lu sedd xolam di jaay Mawlana Rasulullah sallallahu alayhi kon mbokk yi ñu ngi ziare ñëpp ci gàmm gu mag gi ci bésu mag bi di nag lépp lu ci am yàqu-yàqu ñu ngi wax ne taalibe bu ndaw lañ yónni woon te dara matut lawlal isnu du am lenn lu mën a yëkkati waaye comme euh, sirru yasri maal isni ñu ngi tabax suñu wax foofu ak suñu yaakaar di ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu